الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبي الرحمة وكاشف الغمة وشفيع الأمة سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الأئمة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 ilimaan yi àndoon ak ñun ci julleeg fajar gi ñi bàyyee ko rawatina borom xam-xam ya nekk ca darsu ba di lal di jàngale rawatina sëñ daara ya nekk ca daara ya di jéem a mokkaloo taalibe yi téeréeb yàlla bi ñooña ñëpp yal na yàlla wattu leen comme ni wattoo téeréem bi ba tax na daal damay wax ne yal na yàlla wattu ñiy bëgg a wattu téeréem bi comme ni mu wattoo téeréem bi yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yal na ko yàlla def di sof ak yow li ma sosoon ak yow te mooy commencé la tukki mi muy arañaan ak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi mii nga xam ne mi ngi xew ñii ne fukki at ak ñaar ca yonantoom nga tolloog juróom fukki at ak ñaar ca dundam ga tolloog weer wu ñuy tuddee weeru rajab muy rajabul fardi nga xam ne weeru yàlla la noonu la ko yonantu waxee weer la woo xam ne même ba lislaam ñëwagul te jamonoy jaahiliya bu mosaana jot duñ xeex dañuy téye ngànnaay yi weer la woo xam ne dafa beddeeku ñetti moromam ya waaye ñett yépp ànd muy asfurul xurum yi ñett yaa ànd nga ko muy diggi beeg tabaski beeg tam xaret bi waaye moom mu ñëw beddeekul boppam muy rajabul fardi beddeeku googu mu betteegu ñetti moromam yaa tax ñu koy tuddee rajabul fardi ca weer woowa ca ñaar fukki fan ya ak juróom-ñaar dëppoo kësu moo tax léeg-léeg nga dégg ñu ne kas fu rajab yàlla may ci góor ak yàlla gu tedd gu ci gane ci àdduna muy sëriñ fàllu mbakke mi daan wax ne sama bët bii daal manuma ko manta tege ci ku ñuy mbugal ba tax na am ay nit ñoo xam ne dañoo waxoon dañoo jalgati ñi leen di dóor mu ne wax leen luñ luñ sànq ñëw leen ma fay ko sama bët daal mënta tege ci ku ñuy mbugal ngir a xol bu yaatoog yërmande yàlla dëppale juddoom nga moom tamit ak juddoog julli dëppale juddoom nga ak rañaan ak sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba tax na bu jotee léeg-léeg nga dégg ñu naan kasfu rajab bi jot na boo ne kasfu nag day hëpp ndax kasfu moom xajut ci weer wi ndax boo ne kasfu rek wax nga junne ak téeméer ndax sin su tooy junne la kaaf ñaar fukk la faa juróom ñett fukk la kon loola xajul ci weer xajul sax ci at kon su ko defee ndax at mi 365 suur loola xajul ci kon moo tax kon këssu la wax muy ñaar fukki fan ak juróom ñaar la tombeeg bisab altine gannaaw bi nga xamee ne nii passé na am nañu wax ne sax booba minuit jot na ci la yàlla yónnee jibril pour mu war a jël benn daaba ci daabaay aljana yi ñu ko tuddee buraaq gaawaay ba mooy bët ba lahab na ko andil na ko bi fekk ko ca jàkka ja ci néeg ummuhaani mu xoo ko nag mu jug mu andi ndoxam sam-sam xar dënn ba raxas ko génne ci lam ca génnee dugal ci lam ca dugal ngir mën a attan yi mu taxawal daxaba ñeenti malaaka yooyu yëpp escorté ko jibril ak mikaayil ak asrail ak asrafil kenn ku ci nekk ànd ak juróom-ñaar fukki junney malaaka su ko defee jibril téye laxab ga israfil téye teg ga asrail nekk ca kanam noonu lañ ko escorté su ko defee ñu war a dem nag ca baytil muqaddas loola bisab altine la tombee li ko waral yonent bi léppam altine la altine la juddu altine lañ ko ngéntee altine lañ ko yónni altine la gàddaay altine la yegg ca gàddaay ga altine la rañaan yi altine sax ci la wuuji boromam kon moom léppam altine la safaanab Seydi Ahmada Tijaani la Cheikh na Tijaani léppam alxemes la alxemes ci la gane ci àdduna ci weeru safar fukki fan ya ak ñett mu ngi wuyu ji boromam ba tey maanaam alxemes ci weeru sawaal muy wari fukki fan ya ak juróom ñaar maam xalifa na ñu ngi koy tënkee jaadahu dan mu tolloog ama yashkur mu ne yashkur lañ koy tënkee muy mille deux cent trente moo tax mu ne fii aami yashkurin fii shawalin jaadahu dan yowmal xamiisi ataahul mawtu wa sharafu loolu maga nga ca kibritul ahmar ca buntab faiya ba ca lay nettalee loola kon moom léppam alxames la cheikh na tijaani alxames la suñu mam aadama leppam aljuma la aljuma lañ ko bind aljuma lañ ko duggal aljana aljuna aljuma lañ ko génnee aljana aljuma la wacc ci kaw suuf aljuma la commencé tubam ga aljuma lañ nangu tubam gi gannaaw ñeen fukki hat waaye timit aljuma ci la wuyu ji boromam kon day am ci nit ñi ñoo xam dañoo topp bis wala bis topp leen am na ki ñoo xamne ne dañoo top weer wala weer top leen am ñoo xamne dañoo top jamono wala jamono top leen loolu nak ku mëna a settantal sa dundu gi dang ci xam yi ni yow ban nga ci dang ci xam timit yi ni yow kan nga ci ndax balil insanu ala nafsihi basira yéegal nañ ko ci daaba ja ci bisab alqamas gi ci guddigi dahaba ya départ ak jibril ma ngay dem gaway ba moy beut ba dana am nak lo xamé na ni dana ko rombu kana dama lay wax lam rombu ci suuf bala ma laa wax lamuy rombu ci kaw bañ ko rañane mu ne rombu na yonent yalla musa muy julli ci ba kon gaay yalla yi dañoo toxalu waye dehuñu comme deh ak deug deugal boo nekkee boo doon jaamu yàlla fii ci kaw suuf boo dee nekk barsaq jaamu yàlla du fa force waaye boo jaamoo yàlla sag yiw day gën a dolleeku ndax nga nekk barsaq ñépp a ngay xaar kenn xóoloogut ne danañ texeem duñ texe ci am nen lañ toog su ko defee nag ñi ca bëri dañuy continuer di jaamu yàlla mu yokku ci seen yiw woowa noona bu ëllëgee ñi man leen koo fay dana bëri ku yàqule woon ma nga defaroo ji barsaq dana bari ku mankile hon ma nga bar barsaq dana bari ku daggon ma nga bar barsaq dana bari ku bonon ma nga baaxee barsaq moo tax gaay yalla ya fofa jaamu yalla du fa forcé wayé ñang koy togg sen bop ngir bëgg yokku sen aw hiw ci lolu ngay déggé comme dañ fay baxé difa défaro fofa la yalla yenki ci bar ba yaayu sayduna muhammad ak baayam ñu tudd baatu seede bi tudd ak dëgg-dëggal continuer seen dudd ga fala yàlla yenki walee abu taalib mi sonn ci moom mu tudd baatu seede bi tudd ab dëgg-dëggal continuer ci dundam ga loolu la imaamu suyuti yu gëm su ko defee kon nag barsaqa ngoog dafa ñun dañoo xam ñetti dund dund ak àdduna dund ak barsaq dund ak àllaaxira dund ak aduna gi bakkan ak rooxu ñoy xex kenn ku nekk ne dooma man ku daan sa morom sa morom furle ku ci sagana sagan nag ba sa bakkan gañe sa rooxu nga dem safara ku góorgóorlu ba sa rooxu gañe sa bakkan nga mujj texe suñu demee nak fele ci barsak dund ak rooxu mo fay not buñuy mbugal ak buñuy banexal ak lépp ga moko koy su ko su ñu demee ba ca àllaaxira ëllëg war a dem aljana yàlla nañ ci yàlla boole ñee dem safara dem safara foofa dund ko bakkan moo fay not bakkan moom day bànneexu rek ci lekk ci naan ci yeneen xeeti bànneexu ya bu ñuy mbugal tamit bakkan ba dañ koy mbugal ànd ak loolu lépp dana jànk jànkuwanteeg lu koy tax a dee waaye du dee moo tax alquran ne summa laa yamuutu fiha wala yaxya la fay bakkan di bànneexoo tax buñ duggee foofa ba pare dee mi doon raye foofa lay door a deexee too ko wax sallallahu alayhi wa sallam dañu nataal dee ci meloom am kuy ci diggante aljana ak safara yuuxu waa aljana yi ne hee yéen waa aljana ñu ne labayka wa saxdayka yaa rabbi mu ne leen dund leen ci bànneex ci lekk ci naan ci soxna yi ci solu ci lu ngeen bëgg dootu leen deeati dee mi doon rayee ngi nii ñuy rey hee waa safara ñay wax la bayka wax ko ñay huyu huyu yal na yàlla musal ñu ca seseen bëkk néeg ba di Malik ñun suñ bëkk néeg ba di Ridwaan gaaya huyu nag mu ne ah nekk leen ci mbugal ci naqar ci coono ci jafe-jafe dootu leen deexati dootu leen dund dund gu leen di jariñ dee mi doon rayee ngi nii ñuy rey moo tax feeg dee deexagut kenn mënta mucc ci dee bis bu dee deexee nag ci lañu door a mucc ci dee loola yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam bu buñ duggee aljana dundu ga bakkan moo fay gën a not rooxu su ko defee nag bànneexu rek jaamu yàlla amut fa du julli du xoor du joxe asaka waaye nag buñ demee barsaq jaamu yàlla dugul fa for forsu waaye kum neex nga def ko su boobaa tamit dañ la koy bindal ci sa carnet jëf te ñu bëree koy def moo tax léegi-léeg nga dégg ci xarmeel yi noddu léegi-léeg nga dégg ci xarmeel yi ay liqaam Saïd ibnul Musayyib moo waxal boppam ne saa yu ma ñëwee guddi ci xabrob yonumtu bi danaa dégg noddu ci lay xamee sa waxtu yu jot na danaay dégg liqaam dana xabruy gaayu yàlla yu bari danga fay toog dégg kurus yuy dal peri kurus yuy dal loolu nit yàgg na koo dégg ci xabru maam Alaaji Abdoulaye Niass bi nit yàgg na koo dégg ci xabru maam Khalifa bi dégg kurus yuy dal nga dégg peru kurus ya carrément di dal mu tekki ne kon ñoom tamit ña nga fa waaye ña ngay jaamu yàlla ngir yokk seen aw yiw ndax xelam kenn dalagut su ko defee nag feek jëlagoo sa loosuma ci aljana sa xel bu mu dal même bu ko jëlee bu mu dal la yonent yalla Moussa waxoon ñu ne ko du tax mu ne sama mam duggo na te gennat na kon nañu gennat Abu bakkar siddiq ne sama xel du dal feeg waxuñ ma entrer sama jor ba dugg ma ne bismillah du tax sax ma holu ndax man na gennat ndax fekk moy ci am moy man na fekk kenn kon nag la yamanu makrallahi ilal alqawmul khasiruna kenn ki ñun warta holu yaudal yalla yow dal fo tollu del tit ba buy kenn dem safara yow lay don leg leg del bëgg ba yakar ne buy ken dem hal jana yaw lay don, nga bolé khawfu ak raja bo démé ba tollu ci sukurat nak sanil fele ragal de sa yakar ne lu bari bari bari bakar tay ma fanaani ci bur bu bax bur bu meuna ganalé ganale bu meuna a bur bu bari teranga ba tuddé bopam ne innahu huwal baru rahim fa la wara war a banyurus, mu teral ñu bañu rus yalla nañu tenal kon yalla na yalla defal ñu fan ba ñëk njëkk yendu ci bammel wala ñi war fa fanani yàlla nañu gënal place buñu mësa yendu ci aduna bi gënal ñu place buñu mësa fanan ci aduna bi yal na yalla defal ñuko ko defal leen ko defal ko wajuri yi defal ko mbokk yi defal ko mbolem julit ñi fuñ mundi nekk ci aduna bi kon nak euh, dundu gangok alburaxa ngok yegal nañ ci yonantu ba départ na dana am lo xamne dana ko dana bari loo xam ne dana ko romb xam naa dama lay wax la muy romb ci suuf door la wax la muy romb ci kaw asamaan boo demee ci xadis boo xam ne abu ya'la moo ko génne ak bayhaqiyu ñu jëlee ko ci xadisu anas ibnu malik moo wax ne guddi gi nga xam ne dañoo rañaanee yonantu bi yonantoo wax ne romb na yonantu yàlla Muusa ca xabroom ba muy julli laylata usriya bihi marra ala Muusa wa huwa yusalli fi qabrihi loolu Bayhaqi wax na ko Abu Yaxla wax na ko mu bokk ci xadiisu Anas ibnu Malik yi moom sax tudd nañ ne ci hadis bi ne xen na ko ca buraaq wa zakara lii annahu xumila ala alburaaqi fa qaala fa awsaqtu alfarsa aw qaala daabata kon loolu wax na ko su ko defee nag kon wax nañ ko ne ko buraaq mu mu melalal ñu ko mu ne dafa weex am na nag ay tipp-tipp kon lii yonent bi romb na ko ñaareel bi yonent bi romb na ba tey ci suuf ci hadis boo xam ne ibnu murdaya moo ko génnee mu bokk ci ci yoonu qataadatu ak suleymaan taymiyu fu ko defee tamit ñu jëlee ko ci ali ibnu ko ci anas mu jëlee ko ci seyduna muhammad yonentoo waxal boppam ne guddi giñ ma rañaane romb naa aw nit ña ngay siso seen tuñ ya di susa di siso safara siso safara yuñ tangal ba mu wex tal lañuy jël di ko daggee seen tuñ yi waye nak sa yuñ daggee tuñ wa rek tuñ wa dellu sihaat suñ daggee rek tuñ wa delu sihaat ma jibril ne ko ñi ñu rombu ñom ñoy ñan mu ne ma ñi dal ño daan ñi daan joxe discours di warata kat yi bokkon ci sa xéet wi daan waar nit ñi ba ñu waaru te fekk ñoom seen bopp waaruwuñu daanañ digal nit ñi lu baax waaye daanuñ ko def daanañ tere nit ñi lu bon waaye ñoom daanuñ ko bàyyi te loolu bari nañ ko lool ci jamono ji ñoo xam ne wax gëmuñ ca dara la ñuy wax parewuñ ngir def ko def nañ ko muy jëmi fiir rek guñ bëgg a nit ñi di ci dundu ci aduna bi su boba lola da leen xagn ñi mën dundu dund ci Allah qiraja motax tax bi sallallahu alaihi wasallam ne ñom rombu na len ñi dag seen tuñ ya di ko bi maqarida min narin kullama quridat aadat fa qultu man haula ya jibril qala haula khutaba ummatika yaquluna ma la yaf'alun ta lolu melokanu alquran nang koy bagn ba ne at ta'muruna an-naasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaaba afala taqiluna kon loolu lu jar a bàyyi la. ah beneen bi tamit yonentu baa ngi wax limu romb ci hadis boo xam ne Ibnu Maaja moo ko génneeg Hakim ak ci nawaadirul usul ak Abi Hatim wax na ko Ibnu Murdaya wax na ko. mu bàyyee ko ci yoonu Yasid ibnu Abi Malik mu bàyyee ko ci xadisu Anas yi Anas nag mooy ku doon liggéeyal yonentu yàlla Muhammad liggéeyal na ko fukki at mu ne te yonentu musul wax baatab lima musul ma koo wax te liggéeyal naa ko fukki at su ko defee tamit loolu moom mooy génne ci xadis bi mu ne guddi giñ ma rañaanee gis naa ñi bind ci buntu aljana ne asadaqatu bi ashri amsaaliha والقرض بثمانية عشر فقلت لجبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال لأن السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة كوكو ابن ماجه ترميثي يب بوري من الوجه فكك نوادر الأصول من جسنا بنتو الجانا يبند فنه كو سراخ بيانه man yàlla ma faye la fukk bu nit ki amee ci yow soxla ñëw leb la nga lebal ko te yàlla tax dërëm boo ko lebal danaa la ko fulal fukki dërëm ak juróom-ñett kon leble moo ëpp yool saraxe man ma héemu lool laal jibril lu ko waral mu ne ma waaw nit ki mën naa laaj te fekk la muy laaj amut ci soxla waaye koo gis muy leb rek la muy leb lu ko soxlaal la nit du leb mukk lu mu soxla kon nag looloo waral daal loola gën a gën foor ba tey tamit boo demee ci hadis ci ibnu Murdaya wax nag ko mu jëlee ko tariqu mu bàyyee ko ci yoonu Muhammad mu jële ko ci Anas mun ne yonentu nee na ba demee ba ca sidratul muntaha gis na benn lalto ci wurus lañ ko liggéey ñu ngi ko tapp wéer ko ca sidratul taxa foofa loolu gis na ko ba tey tamit yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam nee na biñ ma rañaanee am na xet goo xam ne xeeñ na ma moo raw xet ak séet xam nga séet nag na muy séet bu man boppam cuuraayam yooya dana nekk xet goo xam ne danay neex jëkkër yu bari ba tey bokk na ci moom yonentu bi nee na sallallahu alayhi wa moo wax ne ci rañaan gi gis na boromam ibnu saadu wax na ko said ibnul mansuur wax na ko bayhaqi wax na ko ibnu asakir wax na ko ci yoon woqan mu ko jëlee ci xaaris ibnu ubayda abi abi imran juni wax na ko jëlee ko ci anas mu ne daal fi ma nekkee ne maa ngay nelaw rek lama ma jibril ñëwal ah, maanaam mel ni ku ma cojjal mu ma jug ci sama digënté ñaari mbag yi la ma cojjal ma jug dal gis ma jug rek manam jëm ci garab go xamné ne ay piccé nga fa bu ko défé mu jikki ca genn ga ñaari garab la man ma tok ca geneen ga su ko défé légui ñi yëkëti ba ba ba ba diggante penkoog soxu lepp mang koy gis may dox ba laal asamaan ma gestu tabaarakallaahu ñi am luñ ma leemal ci ngëneelal xam-xam ak ci hubbeeku ci laa gis ak leer goo xam ne gu màgg la hijaab nekkut ca ndeke mooy raf-raf aw wurus la ak yaaquut ñi wax yu ma ilaa ma sha allahu an yuuxaa ñi wax yu ma lu soob yàlla mu wax yu ma ko loolu ma ngay nettali tamit ca xew-xew baag la ca xaju koku bay haqi wax na ko solo ko ci harith ibn ubaydi nun ngay topé kon bam jeex ci li nga xam gis nako gis na timit ay nit ño xam dañoo takk ya. yandam talu su ko ñoo heek munu ñoo wacc ñi leen ay yar mu laaj jibril mu ne ko ñi dal ñoo ngi don jokk sen kawarya lolu wax nako ko kon jokku dafa haram ak lo meuna jokke ya xam comme yow bo jokkoon dañ la wax nga mur ko lo cey lo cey jokati comme da nga wara mur rek mur rek mu jeex boo nak nag boole koog muri ko ñaari bakkar nga am ab muri ga ak ab jokku ga te mu ci ñom ñaar bakkar yu maga maga magla su ko defé même jokk bu daganoon ñàkk gim lay ñàkk mën matal sa farata yi ca ca sangayal janaba ya rek taxna mu te loolu su ma ca yeggee danaa ko gën a farañ fànceeg la ca borom xam-xam ya wax su ko defee kon nag gis na tamit ñoo xam ne seen biir ya dafa rëy rëy rëy rëy ba mel ni ay xur jaan yaag jiit ya ña ngi cay daw saa yu yëkkati ko rek seen ya seen biir ya lëng leen ñi daanu mu laaj jibril ñi ñan la mu ne ko sa xeet wi lañ bokk ñoo daan ñi doon lekk riba lekkat ribaaya laa yaqumuuna illa kama yaqumu alladi yataqabatahu shaytaanu min al masi romb na ñoo xam ne tamit dañoo jël safara di ko jaarale ci seen gémmañ yi muy génne ke seen njëkkee kaaya mu laa jibril ñii ñan la mu ne ko mooy ñi seen bàyyi deewoon woon bàyyi leen ay jirim ñiy profitoo di lekk alali jirim ya a ñoo ngi tamit safara rek lay soppeeku bu muy lekk innal ladhina ya'kuluna amwala yatama khulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wasayaslawna sa'iran kuku ko alquran ku wax amna ki ñoo xamé dina rombu ñi nga xëc seen ya diko diko door ay mbolde nam gëna metté dugal leen ci menn pax moo xam ne kaw ga dafa xat di leen di sotti am mbugal di leen lakk foofa ñu yuuxoo ka jooy laaj na jibril ne ko ñii ñan la mu ne ko ñii ñooy njaalokat yi si sa xeet wi nañ leen war a mbugalee ëllëg la la yàlla wan di la wan portele bi nii kon képp koo xam ne njaalokat nga am nga jabar amuloo jabar ngay njaaloo bu yowmal qiyaamee pax lañ lay gasal dugal la ca taal safar di la lakk doo dund doo dee ñi lakk sa awra yi jël ay mbolte di ko ca dóor ni la remplacer lal bànneexu ga doon bànneexu ke soxna yaakaaree nang ko ban nang ko remplacer tay sa joy yi kon njaalo kat yi nañu bàyyi njaalo te bari na lol ci jamono ji xale bu la mujjë juddu gën la ñëmé moy yalla fukki fukki ak ñaar fukki ak juroom commencé di njaalo ñi nekk ay mag ñu saggan di njaalok jabari jamburi, ñi di eh, jamburi, doomi jamburi ta nit ku respecté yaayam respecté domam respecté ay ay ay ay ay rakam ak magam du njaalo ndax ki ngay njaalok yaay jambur la ben mu don ko mbaa dana ko don si ki ngay njaalok doomi jambur la ki ngay njaalok mbokam jambur la su boobaa nag loo bëggul ku ko def sa mbokk mi bëggul ku ko def sa waajur wi bëggul ku ko def sa doom ji waroo nangu nga koy def doomi jàmbur wala yaay jàmbur wala mbokkam jàmbur te loola bari lool njaaloo yonent bi nee na juróom benni mbugal la ci ne ñett yëpp àdduna la yeneen ñetti ya àllaaxira la ñetti àdduna yi mu ne njaaloo kat xar-xaramam day ñëkk du am leer njaaloo njaalookat day gàtt fan ab njaalookat timit euh, wërsëgam day xat lu mu yaakaar mu tas fu mu dëgmal mu tëju bunt bu mu fëgg mu tëju lu mu laal mu dëgër fekk na lu bon la nga doon def moo doon xut moromam bañ dajee mu daanu ci sa kaw fattal la sa bunt yépp nga nekk ci jafe-jafe ñett yi lu ko nit jëndee jaru ko demal nga fegu nga takk soxna boo ko mënul nga takkoo koor يرنتو بي واخنا na يا معشر الشباب من استطاع منكم man فليتزوج فإنه أغض للبصر fa innahu فمن لم basari wa بالصوم فإنه farji وجاء كون لولو fa باي bi ياو كون innahu سخنا wijaun nga takko kor fo toll lek yap fo toll di lek yenn yeneen yi yo xam day jéqi sa banex ba yooye yóbboo la ngay tëddee doomi jàmbur yi loola boo lëggee danga nga doon juddoo ñetti mbugal yi àllaaxira nag képp kuy njaaloo danga dem safara yonum too ko wax booy njaaloo ah, maanaam timit danga nga biir safara ñetteel bi timit yàlla dafa lay jéppi ba ku tudd yàlla ne ko ba ma ko kenn tuddati génn naa ca moom waxatuma ay waxam li gën a gaaw ci yàlla génn ci ab jaamam rek mooy njaaloo beneen xadis baa ngi wax ne danañ tollu moment boo xam ne safara day ubale xasaw lool ba mel ni mid midda mbaam ñépp naan waaw tey safara moom xeeñ na di ba waa safara di ko wax waaye xet ga ci ñoom lay xem de su ko defee nag ñu ne waaw tey safara xeeñ na di lu ko waral malaaka ya leen di garde di Malik xamal leen ne awraay njaalokat yi yu góor yaa yu jigéen yi la yàlla boole ñi koy lakk kat goga tay moy xassaw ba tax mu ubalé tay ci safara day am moment bo xamné ne ndialo kat rek lañu lak lakk ngay ya way dañuy ber sen ndialo di len lak su ko defee nak lola yaakar na dara jarut ko yow mi may deglu ndialo doxon sa jikko tuubal nga te reccu ko ne dootuma ko defati yow mi nga xamé timi duutoon sa jikko maa ngi lay ñaan bul bu sa xel xalaat mukk nga diko def su ko defee lu ko mooy yépp mu yóbbu ci yi ma limal la suuf sax dafay wax ne man luñ ma teg ci poids rek attan naa ko attan naa bato yi attan naa ferry yi attan naa métro yi attan naa avion yi attan naa bâtiment yi ak immeuble yi li ma àttanut mooy nit ku ñeme yàlla dem di njaaloo ba pare di sangoo ndox ma ndox moo may dal sama kaw moom de wan na ma diisaangeem waaye ki def loole bis buñ xaree suuf dugal ko ci man danaa ko wan sama diisaange kon kuy njaalooy sottee koy ndox mi ndox may ko ca suuf sa wan nga suuf sa diisaa ngay loxo bis boo dee bu ñu xaree suuf sot dugal la ca suuf dana la wan tamit diisaa ngay loxom yaakaar naa ne loolu dara jaru ko jar naa daw jar naa moytu jar naa tamit wattandiku lii lépp bi gis na ko gis na menn màgget muy taxan ci yoon wi moom de lam taxan munu koo xenu tama ngay taxanaat di ca ko loolu nag loolu loolu yonentu bi laaj ko Jibril kii moom sayam wi nim mu rëyee ko amut ko ko ko xen tama ngay dolliwaat lu ko waral mu ne ko mooy ñu xiir ngi ci sa xeet wi rek lu ñu xam ne la ca kanam lu ñu xam xeet ko lu xam ne la ca kanam bu ñu lebee bor duñ mën a fay jàllal bi ko bor lebaat bor dolliwaat ca ñooñu ñooy ñu gën a xiir ci sa xeet ñoom la yàllay won seen coono ëllëg ni mu mel xenu nañ luñ xàttanut te ña ngay cay dolleeku waat te duñ ko mën a xenu te duñ mën a teqalikoog moom loolu nag kon lebkati bank yi pere bu jeex nga defaat beneen pere pere bu jeex nga defaat beneen pere man ngaa dem ba mujj dig ca piir bor ba te yow mi leb la nga tayle loo xam ne mën naa mu ëpp valeur li nga joxe te mënoo koo fay loola yaa nga ca biir ñay wàccee marchandise ya bàyyi ko dubaay wala siin nga ñëw naan bind ci lebal ma lii lebal ma laa fekk kër ga dara nekkut fa nga jaay ko war koo fayee ndax leb bor moom jaay fay rek la man wala liggéey fay nga far def ko dépense mu mujj nuur ki sa kaw sa moromi doom sa rakk ñëw di la toroxal ci marché bi dara jaru ko ñay leb timit ci bëccëg ya leb nga bëccëg bi ñëw taxaw taxawaat toroxal la ci biir kër gi dara jaru ko ñay leb ci natt ya ñu teggil la nga bañ a fay ñu fekk la toroxal la bala yóbbu police yoon di ci am yoon dara jëru ko kon képp ku xenu loo xàttanut jàllal bi ko xenu xaat di ca dolli rek dugg nga ci xiir ca ñooña maanaam nga bokk jar naa daw image boobu yàlla wan na ko yonent bi ci yoonu rañaan gi ba muy dem tamit yeggagul baytil muqaddas am na menn màgget mu koy xoo yonent bi nag woo wut ko ba mu mujjee mu laaj jibril ne ko màgget bi ma doon xoo nag di tabaron ko bi kan la mu ne ko moom de mooy iblis seytaane la boo ko xuyu woon rek sa xeet wi yépp dañu xuy ji àdduna topp àdduna ba bàyyi la fi bàyyi fi yàlla waaye heureusement gestuwoo ko wuyuwuloo ko moo la may sens xeet wi niñ bëggee àdduna niñ ci xiree kon de bu yonent bi xuyu woon xaw fan lañ jëm ba daana wax ne saxaaba yi ne gis naa leen jamono yi ngi ñëw ay mbuubin ngeen yi doon bëri lool yaafus lool mënu leen tus te loolu moo bëri tey la population bi gën a bëri waaye tus mënuñu ko waren werenteeg wax rek ak yàqante ak werante toroxalante këpp xal li jàmbur yi këpp kees tiriyan sàcc ñii njaalo ñii naan sàngara def lu bon ñi karta mu ne nag su boobaa noonu ngeen di mel ñu ne ko lu tax ñi bëri te duñu am kartan mu ñaara tax bëgg àdduna lool taragal dee lii rek moo su boobaa da ngeen di nekk ñoo xam ne ñu nasax ay mbuubin ngeen di doon lu ñëw yóbbuwaale leen tey lu fiy jullit ñaari milliards ak genn wàll ak lu teg suñ boole woon seen doole boole seen kartan gëm yàlla doyloo ko di yëkkatee di tega kon jullit ñi ñooy yore koom-koom bi jullit ñi ñëpp danañ daw nekk ci seen gannaaw ndax ñoo gën a bërile te ñoo ñoo gën a bëri te gën a bërile njaboot gu toll ñaari milliards ak genn wàll ak lu teg amul kenn kenn ku am loola ci sa gannaawam yonentu yàlla Muhammad dong moo ko am ñoo gën a bëri bañ gënee bëri ñoo gën a bëri ñoo gën a bari xam-xam ndax nag ñoo am téere boo xam ne xam-xam yi woy njëkk ak woy mujj lépp ma ngi ca téere booba waaye tamit téerewut tey ñu ngi mel ni ñoo gën a réer ndax gëmuñu téere ba la ca ëpp topp ay xalaat yoo xam ne ay philosophe yi ñoo ko wax ñu naan euh, maanaam diw nee na xawma karla max neena anak xawma lu kenn xamut xalaat yu yàq yoo xam ne lu mu wax bu ëllëgee lii ñëw dajj ko li la ñëw ko du waxi tus ñi gëm loola itijaay di ko jàng gëm ko def ko lu mel ni ay artigal yoo xam ne ni ay saari alquran yuñ gëm te du tus loolu moo ñu toroxal ñaareel bi ñoo gën a bëri leen ndax ñoo ëpp kom-kom ci suñu réew yi rek di jullit ñi la yàlla def pétrole bi te pétrole mooy kom kom waaye ñàkk gëm suñ bopp tey tax na daw ca gannaaw américain ya nga xam ne dem nañ ba mel ni ñooy seeni yàlla gëm leen fonk leen ci naar yaak nangam boo gé boo déggee anglais sax ñu am sa complexe soo su fekkee tamit danga ne Amérique laa bàyyeekoo tamit ñu toojal la maajal la boo ne Arabie Saoudi laa bàyyeekoo maanaam yow mi bàyyeekoo Amérique la ñuy gën a fonk la ñuy gën a teral loola lépp lu ñu toroxal dañoo gëmut suñ bopp ñoo gën a bëri ñoo gën a bëri le waaye ànd ak loolu lépp mënuñoo dem kon war nañu seet suñ bop ñoo gëna bari ci lim ndax ñaari milliards ak genn wala lu tek ñoo gëna bari la ci xam-xam ñoo am téré bu kenn amut ñoo gëna bari la ci kom kom ñoo am pétrole bu kenn amut waaye terewul lool lepp mi ngi melni ñoo gëna ñak ñoo gëna torox ñoo gëna a échec te loolu lepp bàyyi njàngaleem sayduna muhammad moo ñu ko yóbboo kon nag loolu lépp jar naa bàyyi xel kon loolu mooy lenn ci israaw gi ak lafa fa bi romb ca baytil ba ca baytil muqaddas wax naa la ko waxoon naa la tamit jiite gim jiite yonent yi su ko defee boo ma toppee ëllëg ci waxtu wi ci kartanal yàlla ah, damay ñëw ak yow nag ci ah, yonent yi nga xam ne rek romb na leen ci eh, asamaan yi muy juróom-ñaari asamaan yi ah, fekk na fa yonent yi nam leen fa rombee ak ba muy dem ci Euh, asamaan yi lan moo ko yóbbu ndax buraaq moo ko yóbbu wala euh, li ñu tuddee miraaj moo ko yóbbu boo ma toppee ëllëg ci waxtu yi loolu mooy nekk suñ bopp bind insha allahu rabbi wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa bi nga seetaanee vidéo ba pare fekk abonné goon na nga abonné bu ñu dugalee nga mën di jot notification yi